ABS coalition ànd defar Sénégal bu Touba amaloon doxum nemmeeku tey jii si alxames di ñaari fan si weeru novembre si quartier Jannatu Naxim. Ah, yéen mbooloo mu jënut nay quartier Touba Darou Khoudoss. ñu am yaakaar am xeemanteefu jël ñu baax ñi kilifa gu mag yabal leen fi muy soxna Assou moom seen Cheikh Gana Fane moom soxna Bali de xamal ne xam seen takku ak seen mbooloo ak seen bennoo. kii tax ñu yëngu moom lu mu jàpp dañ ko dañ ko fi jàppale mooy soxna Astou moom si sa gën a fànn waaw fu mu xool rek foofu la xool dafa ñu ay teewal rek ndaw yi Abdoulaye Sylla yi ko teewal si dëkk wu sell wi di Touba di xam le nii fas na yéene taxawu askan wi ci seen ay jafe-jafe waaye nag di leen tàllal loxo ci liggéey wu am solo wile. dafa am benn leader bu ñuy jàppale bu ñu naan Abdoulaye Sylla muy doomu dëkk bi ndax nit ki amul lu boppam te damaa jàpp ne di xañ sa doomu dëkk jox keneen moom boobaa dafay fekk ne li naan ko li olof naan ku ku ku ku wàlliyaan rek sa kër daa tagul Abdoulaye Sylla ngeen xam bu baax na kun war a jàppale la te kun war a jàpp la seen lii ngeen di def nga xam ne ay mbootaay lay nekk mu bëgg leen jàppale wutal leen ay financement mbootaay gune ñu jël lu takkul am doole loo xam dañ leen koy jox ngeen dugal ko seen i kees pour ngeen mën a gën a seen liggéey seen i activité te dama jàpp ne réew mi kenn mënu ko développé te jàppale woo jigéen ñi surtout jigéenu Touba dañu sonn ay jàmbar ngeen yéen a ci marché yi yéen a ci luuma yi même ñi newul ci marché yi sax ñu ngi ci seen téléphone yi di jéem jënd ak a jaay loolu ñun ñi dëkk ci dëkk bi yëpp xam nañ ko loolu nag dama jàpp ne bu nit yore teraanga jàpp ne waru ko bi ko yàlla joxee jox ko ko pour moom donc daf ko bokk ak waa Touba ko war a bokk ak waa Touba. ba tey ñuy xamal askanu Janatu Naxim ni ñoom daal seen coalition bi di ànd beesal Sénégal nekkul si politique politique chien waaye daal politique de développement la wootee. li tax ñu di ko jàppale nag malgré que day politique waaye defut politique politique seen politique de développement la gën la gëm yàlla dénk na ko teraanga bu doon bu doon bu doon ne politique comme ni ko nit ñi defee lañ ko xamee kon li mu yor yàlla dimbale na ko ba mën na cee dund waaye dafa jàpp ne moom di toog ba lekk di toog li yor di ko dundee moom kese di bàyyi dëkk bi naan Touba gënulu ko dafa bëgg li mu yor mu koy bokk ak population bu Touba te kenn jiituwu leen ci yéen ndax ay jàmbaar ngeen. te ñu ñu jara jàppale ngeen gannaaw bu askan wi taataanee seen ay kàddu ba noppi di leen xamal ni ñoom daal képp ku leen jàppale ci seen ay jafe-jafe fas na yéene booloo ngir jàppale ko ki lay jàppale kooku moom moom fii ndax Olof Njaay nee na kuy kuy wàlliyaan sa kër daa tëggut ñun nag danoo nekk ci sunu roq bii toog fi di def nii ñuy def di dóor di daw di dikk di dajale suñu doole di jàppale kenn muy liggéey ñu dajalewaat suñu doole di jàppale kenn muy faj soxlaam ñun nag lii ñu yor nii ku ñu ci jàppale rek lañ bëgg. ngànnaay la am te ngànnaay li mooy carte bi ci lii ñuy toog fii di def nii itam ku ñu jàppale ba nga xam ne gis nañ suñu bopp ci lii ñuy def wallaay laasim xaw ma eh, xaw ma leen de waaye ñun mën nañ laa yóbbu présidentiel ndax jigéen ñi rek fi yóbbu ni ñi fal nit ñi ñoo fi fal ñoo fi folle ndax jigéen rek moo ne Sénégal. te nag itam jigéen ñi dañoo sonn gën a góo euh, euh, sonn ci liggéey yi sonn ci financement fii benn financement amu fi kii kii fenn du fi fay procès kenn amu ko fi xam nga lu ñuy ama ku koy yaa ngi te marché bee jaay géej gi ñii jaay keccax ñii jaay jën ñu dajale bu ñëwee ngoon jotee ñu ñëw toog fii dajale la ñi jaayut dañuy dem toog fee di raxasi biram buñ dajalee loolee ba mu bari ci la ñuy toog fii dajaloo ko fa faj fajal kenn soxlaam su beneen ñu delluwaat defaraat fajalaat keneen soxnaam kon ñun aaju nañu dimbal aaju nañu ku ñu jàppale wallaahi laasim ku ñu jàppale ñu jàppale la li may wax moom na ko dégg te dinaa leen ko yóbbante ku jàppale ñun ñii ñu jàppale la mbootaay gi nag xaaju tool nii bari nan de maanaam nit ñi kenn ku ne daa ci yitte yeeg si buru yu bari yi waaye tulunu nii xaaj bi ñëwut kon nag ñu bu ngeen demee ni lëdër boobu waa koñ bee di jantu nayim de nee nañu ku leen jàppale dina la jàppale ñun nag fa suñu yéenee def dox ci ci ci waxi kese wallaahi laa sim suñu carte lan am ci bu bis baax su oto taxawee fii dinañ ko duy ba fees mu wote ji waaye nag ci kaw nag nu jàppale ndax nit ñi dañoo yomb politicien ndax dañuy ñëw dig la ëllëg ki si biir ñu romb la dem seen yoon yow nga naan bu ma yegoon nangam loolu la nit ñi tàyyi fi mu ne de wallaahi tàyyi nañ ko. mu dëkk bi la te mi ngi jàppalante nanu jàppale. ñu jàppale ko ci barke Serigne Touba Mbacke mu am ndam